moom tamit musul am adversaire bu mel ni man. bu dee xeex maa ko daax bu dee bëre maa ko daax. combat yi ma mës a bëri yëpp wallaahi combat bii ma jëm moo ma ci gën a neex. nga gis combat bu neex. barka alxuraan bu jëlee tànkam dugal ko sama tànk a mu lu a moom moo may téye. Arena la voix de l'arène le G5 un gala cinq drapeaux cinq grands combats. ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na. asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV yi wala Bawal TV Lit TV ak waaw ñëpp ñuy ah du mën a ñàkk ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaar di leen ñaanal jàmm si weeru koor gi tey nag bu ngeen gisee fii ñu toog ak ñi ñu jàkkaar lool yaakaar naane ku ne xam na ne fii ñu toog mooy Médina Médina nag soo fi toogee jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom mooy baaba jaw bi jiite Thiam production di promoteur làmb ku ne xam na journée bi mu dëgmal di le 6 juin ñu jëm ci ñu ne déet ne waaye mu làng ak kan Assane Assane Bongo ngeen xam ko saf xorom lool macha allah waa Sénégal safoo ko rawatina Medina bi mu dëkk waaye ki nga xam ne tamit moom laa langal nii moom moo di Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñu gën ko xam ci turu Cheikh Ba Messi loolu la ko waa Medina di wooye parce que loolu olof daf ne dëgg day tungoom seedeem parce que dama nekk marché di leen bee di fa jaay di dégg waa Medina di dugg ci ay kër dégg ñu naan Cheikh Ba Cheikh Ba yàlla xam ne c'est la première ñu tegante ba mais nag turam moom daan naa ko dégg. ci ay ñoo xam ne ñu ngi dëkk foofu ci Médina bi fu ñuy wax njaañeen ak njóobeen ak yooyu ci ay sast yu noobu li mu fay def ci ay mbaax loolu dama koy seere tey c'est la première fois ñu toog tey defe naa ne bu fekkente ne Baba jaw dafa jël drapeau tuddee ko ki nga xam ne moom mooy Assane ñuy def remise de drapeau bi mu woo seex ba mu ñëw toog defe naa ne dërëm bi génnul gaal gi la sotti ci ak def ci la defe naa ne Assane tey ah lii contentement la baaba Diaw toog Cheikh Ahmed Tidiane ba toog ah mu mel ni kon jotaay bi daal 100 pour Médina lañ gis tey ah tabarkalla bi ma gars di woo sànq ba léegi yàgg na waaye ma jël lépp na bala may wax bala may def dara ki nga xam ne moom la ma réew mi fu ma génnee ci réseaux sociaux bi ñu ne ma Assane bu Seex Ba fu ma génnee ñu ne ma Assane bu Seex Ba ragal bi te day xañe wërsëg musuma koo ragal e ba may politique du tey de ñii xam nañ li may wax ba may ànd ci politique maag soor mii du tey ànd nañ ca ab Ablaye Wade ga ministre bu ne ànd na nag yow député bu ne ànd na ak yow waaye mosuma gis ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Ba lan moo tax ñu gën koo ñeme gën a ànd ak moom avant daan nañ ànd ak maire maire bu fi nee ñoo ànd ak moom Mansour xam na li may wax gars yi taxaw xam nañ li may wax bi ñuy ànd du tey ca physique de proximité mu nekk cinquième adjoint man ak moom boobu six personne la ñu woon man ak moom ak Mansour mii ak Mame Samba mi tukki ñoo doon ànd ba may indi El Hadj Keita man maa ko ci indi man maa ko ci indi ñuy àndandoo di demandoo ba yàlla dogal ñuy dem mais tamit booy dem ba gis koo xam ne moom tabarkalla ordonnance feebar lu waay ba pare oyof jël boppam nag oyof lu waay soxla xale bu ndaw sax mën na ko tardeel fenn muy si Ahmed Tidiane Ba fu ko waay woo mu ñëw ñu feebar ñi muy yëkkatay ordonnance ma ne ah dootuma ànd teg kenn kudul moom dootuma ànd teg kenn ku moom toog woo wax ko Mansour waaye nag baaba jaw bu defee lii wàcc na kenn du moom Lattu Jaw ma jaw xoor Fara Jaw ma jaw xoor nga juddoo Medina màggee Medina yor ay minio yu bëri. DG tam xarit day jël ay nag yu bëri bii passé 15 nag la jël rangale ko fii caméraman yëpp a nga fa di ko sat di ko may nit ñi chaque tam xarit benn jour ñu toog ma ne ko yow de mbooloo mi ngay àndal dafa bëri këram laa ñëw ma ne ko mbooloo mi ngay àndal dafa bëri torop te ñëpp la bëgg dama bëgg yàgg sama waa ji ngeen waxtaan ngeen liggéey ndax xam naa ne xale nga nangu nga liggéey waa ji moom ku ko xam liggéey nga koy xamee Cheikh Ahmed Tidiane Ba dama bëgg a leen yéen ñaar ngeen liggéey bu jugee réew mi jóg macha allah réew mi bëgg ko mu xool ba mu neex ma bett ma ne ma Assane tuddee naa bu ma neexoon jël million yow xooluma ci yow ay million xooluma ci yow dara xam naa politiciens yëpp mais dama gis li ngay def ma lay seetaan ngay waxal nit ñi lu baax ma jël drapeau bi jagleel la ko ma ne ko man de drapeau bi fan yëpp maa ngi ko koy wax Cheikh Ahmed Tidiane Ba laa ko delloo moom laa jël drapeau bi. jagleel ko sama waa ji naaru Lissa mi nga xam ne fa tubaari kàlla Médina ko ñor social ko ñor nu Médina jëmee kanama ko ñor ah waa Médina nag jël bëgg a jël Médina nag jébbal ko ko teg ko ci loxoom mu doxal ko ndax ki tabar kàlla macha nekkul maire di def loo xam ne maire mënu ko di def loo xam ne maire defu ko ah kon tabar kàlla macha oyof gi nag ngénte mariage dëj lépp la seex ba di ñëw moo gore moo ñàkk ñaan te ku ne xam na ne DG la directeur la bu ko neexoon du ko def caisse de la dépôt de la consignation ah tabarkal la kooku ku ko yor keesu Sénégal ah du keesu réew mi du lu ndaw kon loolu ku ko yor tabarkal la macha allah oyofee ni waa ji oyofee ah bu njëkk man ma mosumoon xam caisse de consignation dama ko daan dégg rek mais tey yàgg naa ci politique di ànd ak ku ne di animé animé politique yi ku ne ànd na nag yow. waaye macha allah fa tubarikàlla oyofam mbaaxam valeur mu jël lépp nag tabarkàlla delloo ko Medina ne man lu ma am waxam chaque jour loolu la Medina am ko gënal te mi ngi koy def waaye Baba Diaw tabarkàlla dama ne ne laal nga laalaake da nga oyof rek di jaay baax di jaay ñàkk ci ñaan tabarkàlla nag jël say millions yu bari tuddee ko ay. organiser ay lamb yi rëy tuddee ko ku la neex bu la neexoon nga ne borom millions yi laa koy tuddee Assane mii kat yorul ay millions waaye nag fa tubaari kàlla nag am naa kii de. am na Cheikh Ba am naa kii de. soq gàmmu géey bés boobu ñu dala ci delloo njukkal nga jël lépp delloo ko Cheikh Ba mu mel ni lamb ju mag a mag la ak yeneen combat Jacob Baldé nga ca biir ak Mbañi Kayre bari na ay combat Mamor ak ka nga xam ne moom mooy Paul bu daaru maanaam lamb ya mu mel ni bés boobu day ala daw mi tamit da asat noo koy tuddee. ñaari jànq la jël komba jànq. waaw soq gàmmu ñu jugeeti ne déetu waay mu jël mbañi kayre rakku jéen kayre boole koog Jacob Balde bu ñoom Ama Balde ah tabarkàlla loolu dana mel ni tufe jaan ndaw bari dangar man ma jël mu jël bés ba ne tuddee naa ko Assane Géwél Medina xale bi xew su jamono lu mu wax mu saf nit ñi Assane jëlati bés ba ne jagleel naa ko Cheikh Ahmed Tidiane Ba ki nga xam ne Medina ko ñor naaru li sondooy fa tubaari kàlla baaba jaw laal nga laalaake de kenn du moom man drapeau bi maa ko jël man Assane jagleel ko Cheikh Ahmed Tidiane Ba borom Medina. kon daal le 6 na ñëpp waaj incha allah le 6 dana mel ni saraxu ndaw bari weñ tabarkalla macha allah na ñëpp waaj la 6. le 6 daal tabarkalla di leen jox dig daje fii lay xewee. départ bi bi. waaw ñëw naa Medina dugg ci ay kër fekk ñu def fa suuf sëkk kër suuf. ñu ne Messi moo ko fi def ma ne kuy Messi ñu ne Cheikh Ba loolu moom maa ko maa ci teg suma tànk moom maa fekke bakkan lay laaj te ku dekk sa bàmmeel nag maa ngi lay nuyu di leen ziar di la balu ak si koor ñu ngi leen nuyu di leen ziar ñu ngi leen di leen ziar waaw tey mu mel ni tey defe naa ne kii toog di Assane xam nga ko bu baax dégg li mu wax sa digganteeg moom Baba Diaw tamit di doomi Medina tëgg làmb jël doomi Medina di Assane delloo ko ci njukkal Assane jël lépp delloo la ko mu waral jataay bii tey loo ciy wax waa ginnaaw bi ma nuyoo ñëpp di leen ziar di leen baalu ak si weer wu tedd bi di ñaan yàlla mun nangu ñu suñu ñaan si weer bi te may ñu kattan buñ ko mottalee ah, lii baaba def nag dama si am ñaari jàngat bu njëkk bi mooy moom mii de nit ku diñ la dignité rek moo lal li mu def ndax wax nañ ko sànq Assane de ah ñun de njortu ne denc na ay millions njortuñu ko donc bu ko neexoon moom mu xool comme ni gars di def saa su rek tudde ko ab politicien di si séntu dara waaye Assane de moo yeggali ne baaba si kaw mu tuddee ko bisam day jël ay enveloppe di ko jox kon kii man de maa ngi door a gis baaba waaye jàpp naa ni nit ku diñ la nit ko am fulla ak fayda nit koo xam ni wërsëgam bi ko yàlla jox doyloo na loolu laa njëkk jàpp beneen bi mooy man xaw moon baaba mais ku ma xam xam ni man sama mbébét yëpp mooy ñu fexe ñun ñi nga xam ni tey ay doomu Médina lañu yàlla am ñu ñu menal ñu am ñu ñu wuutu ëllëg ñoo xam ni yàlla dina leen jox xam-xam wala am am boo xam ne si ëllëg dinañu mën a wuutu biir Médina parce Médina dafa am lu fi sooxe mooy xëy na euh, wërsëg boo xam ne di nga si mën dimbali doomu askan bi yëpp ñun li ñu am xam nañ sonn nañu lool parce que dañoo néew waaye ñu ngi essayé dimbali ñëpp mais essayé la ñu mën def nañu matal lépp bu ñu gisee ku mel ni baaba muy def lu muy def dañ si am mbégte di si gërëm ba pare nag war ko si jàppale war ko si jàppale parce que bu dul suñu jarbaat nekk suñu doom donc baaba man de maa ngi lay firndeel ni lépp loo xam ne ñun mën nañ la jàppale si loolu nañ ko def parce que yow ku mat a jàppale nga koo xam ni laajul dara man de musuma woo vraiment musuma woo musuma musuma essayé gis ça veut dire que moom mi ngi liggéey liggéeyam di bay waaram di xool nu muy jàppale waa Médina kii moom a wax léegi na ma day teg fi ay quinze nag loolu la ñuy ñaan lay lañ si tàccu donc vraiment baaba maa ngi lay gërëm di sant au nom de toute la population médinoise parce que man yu mel nii laay wër vraiment un jeune médinois qui se bat parce que papa dama naan wax loolu dafa naan wax dafa naan wax ne ma am na nu mu ko doon waxee xamatuma mais dafa ne kii kii jéem a yéeg moo nekk dimbali waaw mais ku ku jéemul dara doo kenn du ko kenn du mënu ko jàppale ñun de ñu ngi lay biral ni euh, à partir d'aujourd'hui teg nañ la xarit te vraiment lépp lu ñu mën dañ ko si def waaw li may jeexale nag mooy li nga defal suñu waa ji suñu waa ji vraiment ginnaaw ba nga ko choisir euh, sur des bases yoo xam ni du alal du alal affaire xaritoo la dëkkandoo ak cofeel boo ab seen diggante ñu ngi si gërëm bu baax a baax parce que néew na ñuy def loolu encore une fois mais suñu waa ji aussi daf ko mérité parce que nit ku diñ la moom tamit nit ku farlu ku am pas-pas suñu ay mbir bu ko neexoon mu dem feneen am lu ne waaye dafa ànd ak ñun si ngor vraiment loolu dama koy sedd ku baax la choisir nga ku baax choisir nga doomu Médina te incha allah bu jour ba le 6 juin da nga xam ni ñun aussi am na ay mbokk am na ay xar ñëpp nañ si essayé teew en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant di encouragé bu baax a baax a baax loolu amoon li may wax. Pégé ñu fi teew yëpp. xam nga di bëggee sunu papa Cheikh Ba xam nga di bëggee Assane xam nga waaw li ma ciy nag bariwul quoi xam nga ñun structure production Baba Diaw jiite ko ñun ay ndaw lañ nekk ci Médina bi di jàppale jeunesse comprendre nga comme ni ko Assane waxee xam nga comme ni ko Assane waxee xam nga Thiam gis Assane taxawaayam ci Médina ñu jol drapeau tuddee ko. comprendre nga waaw Assane nekk xale boo xam ne xale bu am jom la tamit xam nga xaarul dara ci ñun xam nga ñu gis daf ñu nemmeeku lu ñu bëgg suba ba ngoon mu taxaw ci xam nga kon moom mention spéciale xam drapo bii nag ñu ko tuddee xam nga dañ koy dañ ko ciy ñaanal yàlla mu doon ay drapeau drapeau drapeau xam nga xam nga di ko di ko am mbégte tamit xam nga sunu papa ji toog fii di ko ñaanal yàlla lépp lu mu bëgg sunu borom defal ko ko quoi allahumma salli ala sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam macha allah mu mel ni kooku mooy Abba ah, bokk ci Thiam production Diène Kaïré ñu ngi lay nuyu di la ziar ah. waaw waaw léegi mbër jëmbu gay ne mer la fanaanoo gaay bi koo koy Moussa Diouf non man tey waaye yaay jàngal ndaw ñi doomi garmi garmi lay doon Baba Thiam Ada Thiam ay Ëmma Thiam ay doomi garmi nga doomi Medina waaw waaye sama waaji Asan ba pula jeeri mbaa cooy sa yaay alaaji Amadou Ba way sa baay nga jiital suñu deese bi si Ahmad Tidiane Ba jiitaluñu benn yoon yaa ñu sagal góoru naar lii sa ndooy Moussa garmi baa ngi yaa ma daan awu ca stade Assane Diouf xale Mansoor yaa ma daan awu ca stade Assane Diouf ba ngay lu ndaw may way lambu cosaan la fi mami bàyyi woon jën kayra wàcc mat daan naa la wóorul ku daan da ngay féete kaw bu lambu ja sàjjee ma way. waaw li fi xew ni dañuy sant yàlla rek xam nga di julli si yonante bi di sant suñu ñaari waajur di nuyu ñu fi teew ñëpp ku ci ne sa tur ak sa sant di nuyu ñëpp si koor gi ñu nekk nii di baalu ñëpp àq di baalu ñëpp àq di ñaan yàlla xam nga xew lii saawan baawan. waaw di nuyu ki nga xam ne mooy baaba Diaw di sama kilifa di sama lépp waaw xam nga boo nee jéen daal ne moom waaw wax dëgg xam nga di sonn ci man di daj ci man lu ne te yàlla rek tax kon xam nga tey bu xewlee lii tuddee ko Assane nga xam ne Assane Assane bu Medina la sunu fierté la drapeau bi la yor comme ñëpp ñu fekk suñu papa Cheikh Ahmed Ba vraiment muy Messi di ko baax xam nga nekkal fi Medina diñ jàppale yàgg na du tey gis jàpp bu yëgee mu ngi jàpp bu yëgul mu ngi jàpp ak waa CATB yëpp ñu ngi leen nuyu di leen jox seen wàcc waaye di nuyu yaayam vraiment seeti nañ ko point yow muy ko baax sunu maman di ko ñaanal gudd fan wér gu yaram xam nga di nuyu ñoom am di papa ndaw ñi fekk yëpp ñoom mañ xam nga waaw gars daal aba boo limee da ngay juum di leen nuyu di nuyu site internet yi di rafetlu lii di xam ne lii Medina ngeen ko baaba Medina la ko delloowaat rek waaw parce que moom lépp lu muy dox rek si Medina la moo tax boo gisee jeunes yi jox ko bopp ak lépp xam nga loolu la day rayante si promoteur wàllu làmb di jàppale jeune Médina xam nga di rayante ngir jeune Médina kon dañ kon lii boo ko tuddee Assane Assane di di di Médina xam nga dañuy sant daal di ci kontaan di wax na ñëw nañ fu ñu war a ñëw waaw. Mhm. sama rakk Mbagnick waaw. tuddee dëgg la kee dëgg Pikine waaw. Ama Balde waaw ba tey rek mooy li ñuy wax rek xam nga. dërëm bi génnul gaal gi rek mooy bu tëggee dugal tëgg Mbagnick def na lu ko war. comprendre nga waaw combat bi nag ñu waaj di ñaan yàlla mooy ñu ndam rek comme comme ni ñu yëngu waaw Jacob champion la ñu ngi koy ñaanal jàmm di nuyu seen famille yëpp tamit ñoom jàmm parce que affaire bi si fair play rek ñu ñëw jour ba xam nga waaw yàlla mooy ñu dem bu sedd gu incha allah si barke yonent bi ah waa gars yi ñu ngi ciy coow de man pare naa xam naa peut être peut être si ñoom la des man pare yàgg na waaw wala ma wala ma jox baaba mu déglul baaba non de kii mooy tontu wuy ko waaw baaba da ngay tëgg incha allah information bu bees ak noonu sewal suñu borom man mën naa laa gëm dëgg la ku gëmu mën naa gëmuma la dëgg la suma ceeb maa koy ninal suma bopp dëgg la baaba dama koy taxawal jox daa boobu Cheikh na incha allah waaw waaye yow Babacar tamit su ma mënul ci moom dara ma bàyyi xool li ma wax chaque jour suñu bët suñu bët dafa am fu ko teg champion la rek maa ngi koy nuyu non doole ci xel la rek ci bopp la rek waaw <laughs> mooy li ma la tontu dégg-dégg lay laaj rek moo ëpp doole ak ëppul doole bu jaxasoo incha allah lay leer waaw tey xam nga signature lañ ñëw waaye ama gën a xam daal <laughs> waaw dëgg la loolu moom ba mu ci waxee lañ ci pare waaw xam nga parce que diggante bi dafa jege Medina Fass ñoo bokk ay supporters yuy bëri xaju si comprendre nga du question leneen nag amul leneen lu ñu ciy hésité wal lu ciy sikki sàkk amul mais ni mu demee loolu rek fu dara xajul dara xaju fi Fass moo jur Soumbédioune dafa yàgg démb la tey soog a ñëw xam nga am na xam ne nañ ko fàtte ñun ragaluñ loolu sax yàlla xam na ko yaa ma gën a xam Babacar nuyu ñëpp nag génne na ragaluñ loolu waaw Babs Abga ginnaaw yàlla julli si am bi tedd bi di suma yaay bu baax du ko ñaanal fan bu gudd xamal di ñaanal bépp yaay xamal du tam suñu kilifa bu toog mu see baax ku ñàkk ki ñaan ku goxe man lu ma gëmul du ma ko wax ndax fii laa juddoo ñëpp xam nañ ma xamal du nuyu Assane jën moom dootuma ko nuyooti dootuma ko kii dama koy bàyyi yàlla ndax lu ma ko ji moom angaa lu ma ko ji moom angaa ma ma mat loolu weesoo damay am mbégte bu wéex man lii laa gëm maintenant benn bopp la te kenn mënu ko xam ñaar dañu ànd doon benn gëm maintenant te liggéey ko amul leneen dégg na ma maintenant benn bopp la te kenn mënu ko xam ñaar ñu jënd maintenant yi dañu am fulla ak fayda récupérer suñu maintenant liggéey ko amul leneen ndax tey war nañ xeex ëllëg suñu ay sët wala suñu ay doom dafa jot nag doom maintenant wane boppam avant même si drapeau bi c'est bon dama lay lancer benn message boo xam ne nii Assane loo ko gën a mën jàpp jàppal pusam loolu yoox du ñëw Assane utal loolu noonu dégg na du saaga du xuloo du xeex day wax maam lu tax sa jëf laa seen di waxtaane ba gars yi xam kam mooy seex kon lu mel noonu nag ut si diis mais képp kuy taxaw du la saaga da lay yàqal da lay toll noonu moo tax Assane maam mbégte xama sama diggante ma ak moom ndax doo dégg mu saaga mukk moom luy dema mit naa kaxam lak lay lay waaw loolu moom maa ngi si dugawaale waaw avant tout sant naa yàlla bu baax doog doom xam nga dëkk Médina juddoo fi màggee fi ba yàlla xiir ñu doon promoteur organiser suñu làmb war génn tey comme lu Cheikh wax mooy ne nga tuddee ay politiciens waaye nan ak ñaanaan déedéet gëmuñu loolu xam lu ñu gëm doomu Médina kon bu ñu jëlee bis bi jox ko Assane Assane dem kilifa mooy seex Ba kon dañ si ànd tey de Cheikh man ragal ma loolu man lépp lu ñor Médina ñor na ma man lam defi am détail xam ne dama si dugg mais bis ni ki la wax ak maa ak yow bis ni ki la maa ak yow ndax man ku gëm maintenant ma gëm la ku gëmu maintenant gëmuma la ndax su ma ceeb man maa koy niiral sama bopp kon tey comme lu Assane wax ak soo wàccee sa bopp dugg si booy maintenant yi luñ soxla taxaw si luñ bëgg a nekk si fun la woo nga si len kon tey képp ku doom maintenant tamit soo delluwul ñu ko kooku xaw ma ban la waaw avant damay sant yàlla xam nga julli si yonent am naa méthode trop si drapeau bi wax nag mënoo bu baax. <laughs> kon nag gars discours baa ngi noonu le 6 juin la bu leen ko fàtte drapeau baa ngi ne pousse leen may leen gars yi ñu jël drapeau bi yàgg maar pël bu rafet. maa ngi lay béggee jigéen ju mën góor kenn du yow Assane Bongo mag ñee ko jàngal waaye mooy jàngal ndaw ñi guy gu daaru gàngook Assane ku la yeb daa fekk ngay nelaw jàmbaar yi joni joni jàngook waaye Cheikh Ahmed Tidiane ba jàmbaari Medina doom ji yaa ji gërëm sa biir kër ga kenn du ko yërëm ndax dangaa làqu ngërëm am nga jom am nga fayda yaa ngi jàppale waa Medina Cheikh Ahmed Tidiane ba am adversaire bu mel ni man bu dee xeex maa ko daax bu dee bëre